lima bëgg wax ci militant yi moy dama bëgg ñun ñëpp ñu jox taxaw jël quelques secondes pour rendre compte pour rendre hommage à nos martyrs muy quelques secondes de prière ñu ñaanal ñi nga xam sen bakkan rot na ci xex bi kenn ku ne ci diine bi nga bok ñu ñaanal len bismillah jërëjëf dama bëgg dama bëgg àdduna àdduna yépp xam lenn lu am solo mooy ñooñu ñuy wooye suñuy martir duñu leen mës a fàtte léeg-léeg nit ñi ne bi ñu toogee ba léegi li ñu def pour taxawu ñooñu dafa yéex yéexul de ñoo koy liggéey di ko togg président de la république premier conseil des ministres le dénque ministre de la femme et de la solidarité pour ñu liggéey ci loolu buñ ko defee ba mu ñor la ñu def ci ndimbal ñu jàllale ko ci assemblée nationale ñu voté ko kenn ku ne ci famille yi nga xam ne victime yooyu la ñu mën laa jox ndàmpaay gu mat ndàmpaay donte loolu delloosiwul ñu fi jóge waaye am na lu mu mën a mocc wala lu mën a wàññi ci douleur bi te li may wax nii nag dàqantewul ak leeral gi nga xam ne dinañ ko leeral ba mu leer nañ ba ñu xam ku def ak li tax mu def ak ku ko yónni loolu yëpp dina leer motax na ñepp and ak tay ak dal mbirum état du mbirum parax parax mbirum état lo ci liggéey rek dang koy tek ci yoon and ak respecter charte yi kon ma ngi rendre hommage à nos morts ma ngi rendre hommage aux blessés ñi nga xamné am nañ ci gañu yu metti lenn ci sen cër soxé na ci wala sen yaram jagadi na ci ñu ngi leen di rendre hommage di leen massaw ñom xam nañ ni parti bi musu leen seetaan ñoom xam nañ ni bis bu ne sa suñu sekkete parti baangi taxaw sen wet la ci war ñu ci gor gor ci def suñu kem katan may rendre hommage tous les militants et les militantes les militants et les militantes. ñi nga à travers tout le territoire national et dans la diaspora ñëpp gis nañ seen taxawaay dañ demoon ba jàpp ni sénégalais gëmul dara moo tax mënul xeex lu mu gëm waaye li xew ci at yi weesu dafa woné ni lawone woon ma nga fi ba légui moy rew mi réewu gorla, la réewu fit la réewu jom la réewu fulla réewu la te loolu am ba àdduna yëpp gis soyez fiers de ce que vous avez abattu comme travail soyez fiers d'avoir été là non pas pour un homme mais pour votre pays may rendre hommage tous les militants amul département bu des waye département yi ci y a lu melni Ndar lu melni ni Tivaouane Ndakaaru Rufisque Massar Bignona Ziguinchor ak yenen ak yenen yo ne ko lem fi ma ngi rendre un hommage mérité ci hommage di may ma def une mention spéciale

maa ngi ci agenda république bi maa ngi ci liggéeyu état ànd seeg président basiru Diomaye parce que dañoo fekk réew mi ci état boo xam ne ak situation boo xam ne dinaa ci dellu si bu si mais dinaa am lu ma sàcc tuuti rek wax leen ko ci ngeen xam ni projet bi dafa am ay tournant projet bi dafa am ay tournant bokk na ci tournant yooyu li xew Ziguinchor ci diggante bu gàtt boobu xam ngeen bi ñu demee ba gaa yi lal seeni pexe ñu dem ba xam ni ñii dootuñu dellu gannaaw waaye ñu dem tam ba xam ni donte militants yi militantes yi jàmbaar nañu lool waaye waa ji dem na fagaru profiter temps bi mu am diggante deux mille vingt neuf ak deux mille vingt dem jënd lu toll nu kenn xamul ci ngànnaay recruter lu kenn xamul ci ay alkaati ñu xam ni dina jafe ñu taxawaat jàmmaarloog ñoom ba am ci ndam bi ñu gisee loolu ci laa woo sa kenn ci sama avocat yi muy maître Bamba Cissé ma ne ko maître ma ne ko maître gars yi de jàpp naa ni bii paa dina jafe la defoon ak ñoom 2021 ñu mën koo defaat moo tax il faut ma changer stratégie bi ci naka ma ne ko xam nga nu may def mu ma ma ko il faut que ñu gagner du temps parce que faw rek ñu yegg ci élection bi te bu ñu leen seetaanee ba ñu am li ñu bëgg ñoom te dinañ fas nañ ko def ñoom balaa élection bi di jot boo moytul du ñu egg ci élection bi wala Pastef du am candidat ci élection bi kon lan laay def mu ne ma ma ne ko faw rek ñu fexe ba ñoom. suñuy def sen procès tiaxan bobu nañu fexé ba suñ koy def nañu juger par contumace ndax tamit suñu xam-xam numu gatt gatt jang nañu droit touti mu président loolu mënul nekk de parce que ici on est en matière criminelle boo ñëwul dinañu yónni alkaat yi ñu ñëw jël si la sa kër te bu boobaa dinañ la toroxal te defe naa jaru ko en matière criminelle la comparution est obligatoire Je maître li nga wax waxu droit la man politique la parce que li ñi def ni politique la maître Ablaye un procès politique ne se gagne pas dans les prétoires mané ko dina ko régler sama bop non waaye duma la wax lama ciy def parce qu'il faut me protéger la ma dugg ci groupe whatsapp avocat yi bind len ben bataxal ne len ma ngi len di gërëm yéen li ngeen won def yeb def ngeen ko waye mbir mi dotul mbirum droit wala mbirum avocat la ca dess nak dina ko doxal nima ko wara doxé bi ma ko waxee débat yi bëri woon na lool amul benn avocat bu ci d'accord woon ñoom ñépp ne ma lii ànduñu si ma bàyyi bés boobu ba 22 heures ma woo sama chauffeur am di ngom woo kenn ci samay garde corps muy Petit Lamine Sonko man leen waajal leen trois heures du matin daam fu may dem 3 heures du matin ñu jël auto bo xamné auto banalisé la dem nañu ba génn ma dog leen wax ni téggu leen ci yoonu sor Casamance sa jëm parce que it japon na ni résistance bi ñu def Dakar te yeen ñep ngeen def ko ma leen di rendre ma leen di rendre hommage ñëpp xam nañu buntu kër Ousmane Sonko cité kër gor gi ak taxaway bi ngeen ci taxaw yeen jeune yi waye xamoon naa ni mënatul woon nekk fii te il fallait que ñu gagner du temps mané nak nag ma delu replier wu fi ma xam fi ma min te xam leen xam sen taxaway lolo ñëw bon Ziguinchor dama bëgg rendre hommage aux militants de Zigensor. dama bëgg ñu comprendre lenn bu ñu manqué woon étape boobu tey du ñu daje ci stade bi di wax tey du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey du ñu premier ministre Ousmane Sonko cette jeunesse de la Casamance les femmes du bois sacré nous avons fait des grenades. cette résistance héroïque nous a permis de gagner un mois de un mois c'était un mois extrêmement important pour nous mën a la ñibbisi bi la caravane de la liberté Vélingara Diaoubé ba nañ may jàppee fañ may jàppee booru Koungheul waaye boobu jàppoon naa ni la partie était presque gañe kon tey li may wax di jukki bu ndaw rek la parce que suñuy mémoire dina ñëw ndax lu bari xew na te nit ñi xamuñu ko li xew bari na lool wante lépp lu ñu def ci jamono jooju ba ci grève de la faim bi ngeen doon dégg du woon dañoo bëgg a xaru de ndax ay julit lañu waaye xam ni dañoo waroon gagner du temps saa suñu ñu defee seen pexe def pression ci directrice hôpital bi def pression ci médecin yi pour ñu génne ma dem ba jël sama dossier ak dossier fadilu Keïta mii ak dossier Diomaye fay def jonction des procédures ça suñ ko défé rek ma duggaat ci grève de la faim bi ba nga xamné duñu mëna ñëw jël siñu kon ma ngi rendre hommage un hommage extrêmement profond sincère et chaleureux aux militants que vous êtes vous êtes formidables senegal mënu leen fay di nuyu nag suñuy alliés ndax it jàpp naa ni Pastef def na li mu war a def yépp waaye dafa am ndollent dafa am ñu ci ñëw dolleeku si te ñenn ci ñoom ñi ngi fii toog ay dëmbooj wax seen tur waaye ñoom ñëpp ñi ngi fii toog ñoom Malick Gakou ngi fi